ma lan maa tax yàlla waxaatal ma wax amatul sens bu dee ka waxee ma séeri wala papa ana yaay baay wala saa moom la ñoom daan wax ak ma ñàkk saa ndey xamatoo leen noo leen waxee xanaa nu mu leen neexee bala maa dee ngeen wax ba pare xanaa neex kàddu yi nii su ma ko déggee damay bëgg daanu xam ngeen ratatati rañ naan xanaa xam nga su ko defee yambar yi nii naan leen yaay bomb ngeen ànd dem soirée yooyu naan bomb bu ne ak li xew yaa ma gën a xam ma yàlla ku bañ la nga doon daa fekk nga gën war jom ma waa yow mi sax ana lan ngay liggéey bo ngóor taasu sabar loolu lay liggéey góor dangay xam ni góor nga te bañ a def yëf jigéen taxaw sib kiw ji fecc kenn xamul góor nga wala jigéen fecc da di yëfi góor bañ naan laa na góori réew mi tuuti sa kanam dina manqué ay kampoori tuskare ñeel na la taxaw fii naan koo bay nga war a dem dóori waar mbaa dem sa toole bay wokkal wokkal wokkatoogo soo defee ñetti fan yu am na sax jàpp la di nga wokkatu bàyyi na ngay def xool lu baax te sax si moom da nga xalaat bis ba ngay dégg say jëf ñu naan laa doxal moom adduna bii de tool la dañ siy baax ndax sa yawmal xiyaam mën a muj bala maa dee mu naan maa sant yàlla yaa nax sa bopp fekkee ni lañ sante yàlla xaarama yub dem ndax da ngeen jeexal xol tàmma ngeen ku leen wax dëgg ñendan daabon ay badara sama yaay sama maam sama yaay penda sama maam penda mooy sama yaay mooy sama Aminata Diop jura tooba Aline Ndiaye Aline Ndiaye ñu ñëw ci commentaire